sallallahu alayhi wa ba mu ñëwoon fekkalu ñaaw li mu fight fightal jigéen ñi seen right biñ am right to life parce que astu balaa ngaa am cër ci dara fekka nga dunda olofi dañu ne balaa ngaa ne naam nefa nefa mhm. balaa ngaa ne naam fekka nga nekka mhm. foofu da nga war a dunda njëkka soog a xeex leneen jërëjëf waaye soo dundut moom kon wax dëgg yàlla jigéen mhm. amuñu dara lu ñu war a wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mooy di ko santa mm-hmm. di santa suñu borom subhanahu wa ta'ala mm-hmm. ndax ni ko noon bés ni ki tey astu mm-hmm. du ma toog fii sax di wax ak yow alhamdulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu génne si lu métti lii ne nag génnewu ma leen ci rek bàyyi leen dama bugga nag lépp loo xamante ne góoran am ci lu baax di ko def te muy lu baax na ci jigéen bokka mhm. te foos njëlbeen mooy gannaaw boo dundi mu ne na ngeen sàkku xam-xam mu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslima mu ne sàkku xam-xam farata la si bépp julit bu góor ak julit bu jigéen kon bu fekkee ne jox na cër ci jigéen pour ñu sàkku xam-xam mu ngi utal jigéen mhm. place ëllëg ci àjjana si àddina bi mhm. ñu baax fii waaye bu yi ñu delluwaat si place wala nga xam ne suñu maam Adama ak suñu maam Hawa fa la ñu mhm. waaye emu ci loolu suura Nisaa mi nga xam ne mhm. jigéen ñi lañ ko tuddee moom lañ ko jagleel soo demee foofu noonu yàlla may na jigéen ne jigéen ji doo daan doona de waaye léegi di nga doona ci sa alal yi nga xamante ne waaw saadi jigéen ñi la mm-hmm, mm-hmm. moo tax ma dee wax ne ñun jigéen ñi mm-hmm. ak nu ñu ñàkka ñàkka ñàkka jot nañ fexe ñu ubbi suura nisaa ñu jànga ko di ko jànga dinañu gis ne dégga dégga dégga jigéen desut gannaaw jigéen yàlla fonka na ko jigéen yàlla fonka na ko te lii yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu faytal bi ñu am suñu ah jigéen fonka na ko be eh, aja astu mhm. gannaaw sax si suura Nisaa nekkut rek ne ci suura Nisaa la yàlla jigéen rek mhm. suura yu bari boo demee suura mhm. ahzab innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat qanitina bi aya bi jeex waaye bu ñu demee tamit suura ak qaaf suñu demee foofu noonu si aya fukkeel bi ak juróom yàlla nga wa wasaynal insaana bi walidayhi ihsaana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا mu ne maa ngi leen di fàttali ne dangeen ngeen war a fonka seen waajur mu ne waaye seen yaay da ko fonka moom la njëkk a tudd yaay yaay jooju nga xamante ne moo la omboon ak métit coono waaye kera bi nga gane si àddina mu ne métit googu sa yaay kese la woon coono googu mhm. sa yaay kese la woon mhm. waaye nampal ga mhm. ba feral ga sa yaay kese la moo tax ci suura Lukman sax mu ngi wax ne wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi yaamayni an ishkur li wa li walidayka ilay almasir mu ne coono si kaw coono sa yaay yaay jooju nan ko fonka jigéen yonenta bi faytal na ko ba nga xamante ne sallallahu alayhi wa wax na sax ne képp ku jur doom yu jigéen ñaar nga dundal ko yar ko yarin gu rafet nag educate ko jàngal ko jàngal ko dundal ko bem nekkam mag bi nga dugal ko si néegi sii yonenta bi ne maa ngi laa ndokkeel di la yëgal ne bés penca maa yow dang maa jege jege boo xamante ne maa yow mu def nii ñaari baarama ne nii la ñoo mel bés penca bu fekkente ne am nga ñaari doom yu jigéen xam nga woon bu boobaa jigéen moom baan nañ ko waaw definitely macha allah waaw alhamdulillah mhm. jigéen am equal mhm. si àddina ak fale yàlla wonaa ñu ne mu ne ya ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa kabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum mhm. inna allaha alimun xabir mu ne ay eh, yéen nit ñi man yàlla maa leen binda ci góor ak jigéen def leen ay ngeen nekk ay xeet yu wute nekk ci réew yu wute waaye mu ne man yàlla ku ma gën jege mooy ku ma ragal yaa xam góor nga mhm. yaa jigéen ga mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ne gis nga jigéen bu ragalee yàlla di julli waxtu yi juróom di oor weeri koor di sama ciram di toppa ndigali borom ciram mu ne boobu jigéen kere ba mu génn àddina nañ ko ubbil bunti àjjana yépp ne ko jaaral fu la neex nga duga kon diga diga diga jigéen war naa maagal war naa maagal war naa santa yàlla war naa kontaan ndax yàlla bàyyiwul jigéen yàlla ne fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin minkum min zakarin aw unsa baadukum min baad yàlla ne duma delloo liggéeyi képp ku liggéey mhm. yaa xam góor nga wala jigéen nga mhm. comme li nga liggéey lu baax la mhm. yàlla ne naa la ko nangul waaw mu ne yéen ñëpp benn ngeen ci man loolu yëpp islam moo ko may jigéen astu wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu bare bare ci loolu di gën a ñaanal yonenta bi sallallahu alayhi wa ndax jigéen di wax ne ñu ngi célébrer ñu ah macha am na fum mu commencé am na fu mu tàmbalee waaw am na fu May si tàmbale bi leeral nga ne maanaam jigéen amutoon doole balaa islam waaye bi islam ñëwee suñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooleel na jigéen jox na jigéen axam jox na jigéen ciram be loolu dox di dox ba jamono bi nekka nii alhamdulilahi rabbil alamin jigéen ñi mun a toog di màggal International Women's Day bés biñ jàkkleel jigéen ñi so loolu war nañ see sant yàlla la in shakartum la azidannakum bépp jigéen léegi nag fi mu nekk suñoo wax waxi jigéen kenn du wax islaam te waxuñ Khadija Khadija ku nekk xam na ne mooy jigéen bi nga xam ne moo njëkk a dugg si lislaam te moom it soxna yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam Khadija bintu Xuwaylid radiallahu anha nekkoon na jigéen joo xam ne jàmbaar la liggéey na si lislaam dañ bugga nga baaxee ñu liggéey kañ moo doon Khadija ak liggéeyam si lislaam pour jigéen ñi gën a xam Khadija bu baax a baax alhamdulilah astu mm-hmm. laaj boobu am na solo mm-hmm. yaa Khadija mm-hmm. radiallahu anha mooy woon maanaam mooy yaayi bépp a julit mother of the believers mooy suñu yaay Khadija ndax jigéen jooju mooy won soxna yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam te si jamonoom jamono bi moo seya moom mooy woon the only wife amatul woon beneen jabar si jamonoom moom bi doon sëy ak yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam ci booba jamono ci lañu suufiloon jigéen daan def jigéen lu ne mhm, mhm. si lu ñaaw mhm. yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan am benn doc Mount Hira xaaru Hira fu mu dem toog benn weer ci at mi di xalaat di ñaan boromam di sàkku ci boromam pour mu mun a xam boromam parce que jamono la woon boo xam ne kenn gëmutoon yàlla dañ doon jaamu ay xërëm mhm. ñaawteef boo xalaat mhm. naan sangara mhm. rey nit ñi njaaloo karta rey xale bu jigéen bu juddu lu ne ci benn weeri koor guddi laylatul qadri ci la jibril wàcca ci moom ci doj boobu indi njëlbeeni aaya bi bismillahi rahmani rahim ikra bismi rabbika allazi xalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك mu ñëwee ak wax ju rëy ji mhm. yonent suñu yaay ji Hadija mu nettali ko mhm. ragal mhm. ne mu tëdda khadija moko dalal suñu yaay ji ne ko bul ragal bul tiit sa borom du la def dara lu ñaaw te yow suma borom kër gi yow musuloo wax dara loo xam ne du diga te yow nit ku baax nga di ngay teral sa ay gan baax nga si sa ay mboka baax nga si sa ay dikandoor doo lor sa dikandoor yi baax nga si sa liggéeykat yi yow nit yi jaama nga yàlla du la def dara lu ñaaw dalal ci kër Xadija